C'est un album de 11 titres. Hein? Premier, y a Esprit, il y mu neex il y a Papa, il Sama gént bu neex mi nga xamante ne maa ngi ko woy sama yaay. Il y a aussi Number One, hein? Hmm. euh, il ak euh, bëgg na daal capacité que woy yi ma xamante ne woy naa ko nu euh, ñëpp xam na rek album 11 titres la et c'est varié am na malax am na coupé décalé am na afrobeat am na raga am na sol am na li nga xamante ne aussi euh, euh, mooy euh, mooy danse danse danse hall bi nga xamante ne bëgg naa nit ñi nga découvrir ah yi nga xamante ne jaxase naa ko ci biir woy boobu nga xamante ne maa ngi ko tuddee tu m'as donc mooy numéro 7 je pense nit ñi buñ ko dégloo dinañu xam ne gi liggéey na bu baax a baax a baax musicalement et vocalement aussi ok eh, beneen eh, eh, waa <laughs> xam naa loolu moom sax jarul nga koy laaj doom <laughs> ndax papa ak yaay ku leen delloowul ñukkal xaw ma ci àddina kan ngay delloo ñukkal parce que tey su ma demee ba toog fii sama yaay ak sama papa ñoo ko waral du ma nekk ci musique di wëy lu nekk te du ma wëy sama papa ak sama yaay. li ma ci sabab aussi mooy doom yi nañu jël en considération les parents lu am solo la parce que gëwuma adage boobu di ne léegi njabootu Kanaara la yow da leen di bàyyi ñi jiitu nga topp seen ginnaaw jamais de la vie njaboot euh, foog naa ne euh, waroo waroo démissionner ci njaboot te parents li tax ñuy démissionner ci njaboot mooy manque d'éducation yi nga xamante ne euh, jox nañ ko seen doom yi foog naa doom dañ ko war a yar fi ñu ko war a yare Euh, xamal ko les bonnes valeur mu naa loolu boo ko defee rek doo réer pour wan xale yi ne yaay dañ koy teral papa dañ koy ormal parce que dañuy naan liggéeyu ndey barke baay wéy naa ko pour sama bopp wéy naa ko pour delloo la njukkal mais aussi wéy naa ko pour euh, yee xale yi nga xamante ne léegi dañuy wax rek ñoo doon seen kilifa bopp te tànk yaa ngi wax yaay di gëstu naan papa foog naa ne say kilifa mooy ñi nga xamante ne ñoo la ñoo tax nga dund donc kilifa même bu ñu nekkatul ci àddina sax waroo doon sa kilifa boobu chaque jour boo waree dugg ci lu baax war nga leen xalaat boo nawee def lu bon aussi war nga leen xalaat ba delluwaat ginnaaw. question d' actualité immigration clandestine bi gi gi nga nekk leader d' opinion tey du ñàkk am nga message ci doom yi réew mi ñi nga xamante ni fi mu ne nii désespéré nañ di jël yoonu gaal de façon irrégulière ngir wute di ittugal ngir wut fa seen wërsëg. waaw dafa nekk sujet boo xamante ne aussi jiitu na suñu juddu. mais je pense qu'il est temps nit ñi toog xamal ne jeunesse soo bëggee tey suba nit di wax ci yow ci lu baax soo bëggee tey nit di roy ci yow day fekk nga doon dara sa réew. Euh, jeunesse di euh, du ma du ma kii nu ma tudd sax du ma ne ñi tukki euh, du ñu du am baat seen réew mais foog naa tey nga toog sa réew liggéey tekkee fi joxe bon exemple ci sa réew. foog naa ne loolu boo ko defee di nga pousser jeunesse bi à sa que xam ne toog sa réew tekki am na. mais légalement mais ñi nga xamante ne nag ñu ngi jël bato yi loolu man du mënuma ko sax gëm parfois da gis ay images ci internet bi ñu won la ay corps ma ne lii du ay corps dañuy tiital et pourtant c'est vrai ay nit yoo xamante ne la fii la ñuy jógee mala yeneen réew ci Afrique dem pour jéew a euh, wuti seen wuti leneen. mais euh, ne serait-ce que entrepreneuriat la ñu war a favoriser comme nekk nañ dëkk boo xamante ne da ngay jàng aussi ba am say diplôme te doo mën a liggéey mais entre euh, entrepreneuriat moom la ñu war a gën a fësal c'est-à-dire boo amee sa 5000 francs bala nga am sa 10 mille francs nga ne ah lii kat dinaa jéem a xool même su ma si jëndee ay manque di ko jaay xale yi sax ndax suba dinaa ci am dara moo gën ngay naan xaaral ma dem Europe wuti ay million parce que da ngay gis bateau da ngay fay ay nu mu bon nu mu néew néew néew di nga fay ay un million jëm ci kaw saa waa ji 1 million loo fi ibbi wax dëgg yàlla benn at ñaari at dina métti mais après dina dox man daal sama frère yi ak sama sœur parce que jigéen ni aussi ñu ngi ciy bokk li ma leen di ñaan rek mooy ñi gëm seen bopp gëm seen bopp dafa am solo gëm sa bopp gëm sa réew bu ñëpp demee xamu ko fiy des bu ñëpp demee kenn du fi des te bu boobaa nag ah li ñuy wax berceau de l'humanité Afrique foog naa ne dootu ko nekkati dina suulu dina mujjee nekk tomboo ah ngeen baal ma ci kàddu bi mais na ñu ñu toog fii gëm seen bopp muy fii muy feneen fépp foo nekk rek mën nga fa tekk dafa dafa engagement politique euh, ak la ak la maire Alpha Babacar Sall l'ex-maire su fekkee dafa am engagement politique boobu ci côté Khalifa Ababacar Sall est-ce que mënul indi ay gàllankoor ci carrière Guigui parce que Guigui actuellement lu national la par contre lu international la est-ce que boobaa dina ci moom moom mu am appartenance politique. xam nga ni li ñuy jaawaatle conviction ak engagement donc man par conviction ak par amour ak euh, ak moo tax. ma nekk ak sama papa Khalifa Ababacar Sall dama juddu fekk samay waajur di ko jàppale man du ma juddu nag déggal samay waajur sànq dégg ngeen li ma wax ci plateau bi suñ ma nee xoolal gauche ma xool gauche suñ ma nee xoolal droite ma xool droite ñi gis xalifa jiital ko man may ñëw di aw ci kaw man may aw ci suuf ça je ne le ferai jamais mais c'est pas un engagement politique c'est par conviction c'est par reconnaissance et c'est par fidélité loyauté moo tax bañ na ko du ma ne sax xalifa papa laa koy woowee donc euh, euh, waxu politique moom vraiment man bokkuma ci je suis apolitique. indi dara ci sa carrière dara lu la yàqal. moo comprendre rek moo ñu comprendre parce que yow yaa ngi may naan engagement alors que kenn mësuma gis ma taxaw di di di di revendiquer euh, que ça man papa xalifa rek laay wax je parle même pas de de du PS ma la leneen. non non sa xeex ci wàllu ci wàllu cancer. Mhm. Euh, gis nañu jamono yële ci ginnaaw am na fi ay artistes yu mag yoo xam ne euh, may nañ leen fi ay may bu njëkk ah euh, su mburu 5 millions mbaa ci millions gii ngi taxaw ne góor bi may bëgg tey pour mu pour ma nangul ko war war a jox may bu njëkk 350 millions te su ma ko joxee. 600 millions 600 millions. ou plus machine ko bëgg jëndee pour dimbali ñi nga xamante ne que ngi loru ci jàngoro boobu tey bu la góor joxoon 600 millions yi di nga waaw ah yow ba dangaa yow 600 millions yo dama dëkk grave di la sobal del nga wax waaw de <laughs> voilà donc euh, pour à votre question loolu nag lu dëggu la ci man du ay faux de vraiment du ay faux te foog naa ni comme ni ma ko waxee jigéen dara jomm ko parce que gis nañu góor bu teral façon jigéen bu nekk donc jigéen dara jomm ko rawatina nag ah euh, mu nekk euh, combat boo xamante ne combat bu noble la cancer du sein ah yéen mi fi taxaw yépp bu laalul ku leen jege laal na koo leen xam koo xamante ne kii cancer sein soit yóbbu na ko mala mi ngi koy dund saal bi sànq dama bañoon a wax mais am na ñu bëri ñu fi toog ñoo xamante ne seen jabar yi cancer du sein lañu am mu nekk feebar bu metti man mi may liggéey ak waa LISCA muy sama yaay ah la présidente nekk femme bu engagée femme bu digne femme bi nga xamante ne delluwul ginnaaw benn yoon ci moom laay roy ci moom laay xool parce que cancer nekk na feebar boo xamante ne dañ ko dañ ko naka laa koy wax du néewal doole sax mais dañ koy ruus sax fësal dañuy gis ku am cancer da koy nëbb alors il est temps des artistes comme nu taxaw revendiquer li nga xamante ne mooy feebar bi pour ñi nga xamante ne bu ko amee du ñu ragal euh, fësal ko pour teel a feju parce que nëbb bi yëpp mooy indi après les cas de décès booy xool France muy États-Unis am na benn euh, richissime femme d'affaires boo xamante ne bi mu taxawee fësal ne ma dama am cancer du sein si la jigéen yëpp am fit ne ah comme diw moo am cancer du sein taxaw fii wax ko comme man ko aw ma waruma am lu may ruus si la jigéen yëpp jóg dem dépisté wu ba booy xoolee taux de mortalité États-Unis cancer du sein euh, doo ci doo ci doo ci doo ci dégg ci li nga xamante ne déggoon nga ko des années avant parce que famille dañuy teel a dépisté wu teel a xam li nga xamante ne mooy seen feebar donc man sama yéene mooy rajo radiothérapie ma am ko jëndal ko sama bopp nag dafa neex foog naa ne nag sama jëkkër su ma ko jëndalee bu ko indee may bu ñëkk ma yóbbul ko sama maman laa koy yóbbu rek ñu xool ban dëkk la ñu mën a amee rajo bi rek jënd ko. mais li ci nguur gi waroon def jàpp nga dañu def baal ah. que mu ko ci def sa gis-gis. sama gis-gis non non parce que euh, mënuñu chaque fois. ñiy def xam ah, nga man su ma demee ba ba koy ñaan sama sama futur jëkkër ba gaa yëpp di daw donc ça veut dire que li ñu waroon def defuñu ko man sama combat mooy képp ku amee cancer du sein euh, ordonnance sax doo ko jënd ma loolu mooy sama combat Mina daal gi euh, ci ay jamono ci ginnaaw artiste yaa ngi jooy affaire SODAV euh, day jotuñu seen ay recette. Mm-hmm. jamono ji wala ci semaine bi président de la république wax na dana yabal euh, na leen dem auditeurs yi waa SODAV. pour seen recette yi ñu daan am ba xam ni ñu koy doxalee jaar na yoon wala daal yoon. nag nga gisee loolu président nit nag da ngay wax rek te yàlla moo tax te man kii ku ma xam-xam ne moom dëgg rek moom a tax a jóg man de SODAV dem naa fa fayeeku.

te man ku ma xam xam ne maa ñu ko lancé style musical bi ñuy wax Pop Malax ba ñu may woowee la reine du Pop Malax de ce fait su ma demee nag bay defaat leneen je pense que dafa war a nekk à la hauteur de ce que les gens vont attendre de moi raison pour laquelle mu sacrifié wu c'est trop dur mais ma sacrifié wu jaxal na ma ma bañ a lekk ma bañ naan mais mu bëggal fans yi ne serait-ce que bu toog rek bu yëngal bopp nii rek loolu neex na ma ne sax que nit woo ma ne ma sa woy bi neex na rek donc fay na li ma ci dépensé woon yëpp dem naa ci Allemagne dem naa France euh, dem naa ci Espagne Italie donc euh, voilà pour ne citer que ces pays là euh, ñooñu ñooy nit faar yoo xamante ne liggéey naa ak ñoom Tumatraay bi ma leen di wax c'est un ingénieur du Congo moom moo defar li nga xamante ne mooy Tumatraay yi dew ma nag Congo dafa defar son bi yónnee ñu ko Allemagne ñu liggéey si donc mu nekk loo xamante ne pour bëggal si rek moo ma tax a jóg

ak tam euh, li ñuy wax ne rek xaar day wees moo tey donc euh, bien vrai que ah musique lu mu laaj peut-être mën naa génneewaat leneen génnee lu sexy parce que il ne faut jamais dire mais lu nekk ak temps wam ak lu nekk ak euh, communication bi nga bëgg a nekk nañu dëkk boo xamante ne aussi pour percer fi dafa xaw a métti il faut yenn yenn yenn flash yi yenn flash yi boo xamante ne ça va tiquer à l'œil pour ku def nii defaat nii loolu moo waraloon rek gigi bu njëkk ba mais léegi nag dama bëgg nit ñi découvrir ma musicalement te aussi euh, da ngay dem euh, di dajeek ay yeneen nit di déglu conseil nga xam ne aussi tamit bien vrai que man lépp loo xamante ne sol naa ko man la mës naa ko wax man la mës naa ko def ça rentre dans le cadre de de la musique de l'artiste moo taxoon ma koy def mais bu ma génnee ci musique beneen gigi gi nit ñi di gis voilà donc euh, raison pour laquelle léegi ma xoolaat bi ñëwagul. sa patron dem na wuy de salaam. Ah. wuy ji na de salaam yow waxoo sa gars de dem nga wuy ji dig. dem na wuy ji de. waaw moment Covid bi nag euh, bokk naa ci artistes yi njëkk pour ne pas dire man kese def caravane de sensibilisation distribuer ay produits de première nécessité sanitaire yu ci mel ni ay eau de javel euh, détergent des masques et autres euh, ma ànd seeg waa Magic comme ñi nga xamante ne ñoo ma branding auto yi yëpp pour sensibiliser nit ñi par rapport au coronavirus. loolu foog naa c'est le peu que je peux faire pour la population. en tant qu'artiste engagée et en tant qu'artiste boo xamante ne euh, day œuvrer du social euh, je me trouvais vraiment euh, mal à l'aise mas bi ñëw ma toog di damay xaar mas bi moo tax ma def geste boobu c'est vraiment dur mais sant yàlla bu baax te di wax ne nag ba tey feebar baa ngi fi nit ñi ñi prudent beneen question bi nga xamante ne mooy album bi xam ngeen ne album dafa cher parce que yàgg ngeen ci presse bi album dafa métti Sénégal y' plus de maison de production euh, plus de label y' a plus de est-ce que mës na am sax maison de distribution donc artiste tey bu génnee album 11 titres voyage ci dëkk bi yëpp pour rek bëgg bëggal fans si donc je pense que <laughs> aspect financier bi moom dépassé nañu sax yi nga xamante ne moom la ñu budgétisé woon euh, mu doon lu métti nag mais avec fierté et avec euh, nu mu tuddati sax ak ak ak xol bu neex ah, laa ko présenté tey pour nit ñi mën a xam ne euh, Guigui liggéey na te gii Guigui sonn na ci albumam li may ñaan rek mooy gars yi nañ consommer album bi nañ ko jënd bien vrai que dëkk bi métti na mais nit ñi nañu jéem a jàppale artistes yi man dama gëm senegal ñi jaay disque d'or Sénégal parce que booy dégg disque d'or artistes yi sénégalais peut-être ay collaboration lay doon nga ñëw cof ci dara mala dara mais man dama bëgg artiste même bu dul man mu nekk sama beneen morom na génnee album jaay fii Sénégal am fi disque d'or ñu certifié ko ne waa Sénégal ñëw jënd album bi.